alors mu nekkoon euh, Alioune Badara Ndiaye Zikroullah donc euh, mu nekk woy boo xamante ni rek euh, ñi ci plateau bi moom xam naa ni dem nañ ci ba ba jeex jaratul ma leen koy may donc di ko jox képp koo xam ne rek voilà dafay déglu kii di Alioune Badara et mu nekk nag une occasion pour ñun ñu daal di wax ñi nga xamante ni peut-être seen xel génn na ci et tout et que Rajab bi mu ngi ñëwaa ah. donc ajuma bi di ñëw la ñu daal di koy waajal nga xamante ni moom mooy euh, bàyyi sëñ Abdou Karim moom moo ko waral donc euh, Willy Sadio Diallo tey euh, dama lay bàyyi nga dalal suñu ganu bés bi duma ma ci avancé ah, dama lay bàyyi nga nga daal di def lépp. Fatou Sidibé tey ñu sant Sidibé xanaa. Fatou Sidibé en tout tey le vendredi ñu waxtaanee art et te dañuy invité kenn koo xam ne ou bien dañuy daral kenn koo xam ne mu ngi wéy ci turu euh, FIFA nekk artiste chanteuse en même temps musicienne si vous voulez FIFA ñu ne wax bienvenue suñu plateau suñu matinal. Euh, merci euh, salaamaaleykum waa matinal suñu matinal maa ngi leen di ziar di leen di leen wax big di leen remercier a même temps si invitation a euh, sama nom d'artiste nag Fefa la FIFA. Eh, Fefa FIFA c'est pas comme si man j'étais si affaire football ah FIFA la waaw moo ma ne FIFA mel ni Infantino. waaw affaire football man déjà je suis pas trop football quoi. c'est ah, que c'est que c'est que man je pense que Wille Sa Diallo boo comprendre ba tey. Ah, waaw comprendre ba tey. ah accent pël bi la. moom accent anglaise léegi non non léegi taxaw léegi ma sa tur léegi FEFA. FEFA ok FEFA. mu tuddee la FIFA acronyme la quoi sama tur acronyme la ça veut dire femme exceptionnelle forte et ambitieuse. ok d'accord ok donc euh, FEFA on va <laughs> dire euh, bienvenue suñu place. kii yow laisse-moi tranquille toi en tout cas FEFA bienvenue. et donc avant euh, sama question mu nekkoon mm-hmm. yow depuis quand nga commencé quand même sa carrière ci musique ak lan moo la ci dugal aussi ci domaine boobu. damay commencer par bu bi nga mujjee. li ma dugal si musique du lenn lu passion dama ko mës a bëgg ba ma nekkee xale ba tey waaw ah, dama daan woyantu su ma daan gis ay Beyoncé ñoom nag ñoo ma ñoo ma ñoo ma inspiré quand ñoo ma motivé su ma daan gis ay Beyoncé ay ma nekk fa si kanamu télé bi de walax walax mel ni jaar xam nga di imaginer man tamit su ma nekkee sur scène xam nga euh, donc ça m'a motivé ma ne man j'aimerais bien su ma nekkee mag incha allah ma def lii voilà léegi euh, kañ laa ko commencé 2022 bi laa def sama tout premier single voilà 2022 bi ñu génn laa njëkk def benn cover bu Samba Peuzzi oula mu intitulé ko Awa à l'hommage de la femme après ma def euh, la mu saf bu Diba version célibataire di ci fay célibataire yi comme si j'en étais pas un après euh, ma ñëw génne sama tout premier single euh, bi nga ne du cover du dara sama der bu loolu génn depuis vendredi bi passé teel def une semaine léegi pourquoi euh, bon ci boobu laay ñëw mhm. sama der bu ñëw. en fait dañoo gis ni que Euh, peau noire mën naa ne dafa nekk en voie d'extinction quoi tu vois parce que ñu bëri léegi euh, xam nga question de choix la nag je les blâme pas parce que ku nekk tamit ak li nga bëgg a def euh, voilà je ne les blâme pas du tout mais dama ne mais dama leen xaw a ñaaxaat tuuti rek sensibiliser tuuti pour wan leen nekk que lu naturel su fa nekkatul rek mooy loolu ça peut ça peut ça peut apporter des conséquences quoi te des conséquences seront néfastes parce que tamit lu la yàlla jox loo xamante ne c'est naturel c'est inné en toi tu te débarrasses de ça après tu deviens fragile forcément y aura des donc ma ne xaaral ma ma ma ñaax si nit ñi ma sensibiliser te et dafa nekk benn thème boo xam ne dafa ma mës a intéressé depuis toute petite ma ne lii je en combat quoi dinaa si xaw a a waxtaan tuuti quoi mais pas nekk damay force nit yi pour dinaa leen bàyyi leen xeesal baaxul mm. non ah gis naa la ngay clashaate ci bi le dafa clash ba clash Mame Ndiaye Savon ah ouais est-ce que xamoon nga ko. ci ci ci biir clip bi non dama ne namuñu Mame Ndiaye Savon kon ne ko mu jox ñu cër su ma nee namuñu Mame Ndiaye Savon c'est pas que dama ko clash ah. comme si dama yor sama benn entreprise tu moom mu nekk sama concurrente. ok tu vois léegi man may promouvoir teint noir muy promouvoir teint xees ma koy xaw a kii noonu quoi di ko xaw a jàmbal noonu quoi xam nga rek mais <laughs> nekkul dama ko dama ko clash quoi. waaw <laughs> d'accord en tout cas en tout cas daw nga clash bi mais de toute façon xam naa ni euh, saa bu la dégloo rek euh, dina préparer ah, ku ko xam-xam ne. sama la. Ah, chaque jour ñu ne ma léegi mu live la. <laughs> daa daa mel ni nag parce que am na ñoo xam ne peut-être melu nañu façon a bàyyam sedd donc euh, mm-hmm. voilà file mais <laughs> euh, bien yaa ngi wax que peau noire mu nekk comme point d'extinction on mm-hmm. benn artiste bi nga daal di cité sànq di mm-hmm. benn musique di Brown yaa ci ci côté boobu noonu donc yow aujourd'hui euh, booy way sa sujet ou bien thématique yi nga développé est-ce que toujours si société bi comme ni nga koy waxee sa der bu ñuul ou bien am na yeneen thématique yi nga xam ne dañ ci liggéey ah bien sûr man nag dama nekk koo xamante ni je suis très observatrice te euh, bëgguma nekk waykat boo xam ne damay woy nii rek <coughs> euh, di di sans sans si ginnaaw am benn leçon de morale wala benn affaire boo si jàng boo si tiré comme leçon man bëgguma loolu euh, damay wax tout temps su fekkoon dama nekk écrivain écrivain bu engagé lay nekk comme par exemple temps ñoom Victor Hugo xam nga ñoom danaa littérature engagée non engagée man moom c'est engagé bi laay bokk wala ma nekk benn espèce Thégo poète la de. <laughs> waaw bon il n'était pas engagé quoi il faisait dans le mois les les écrivains engagés mooy ay ñoom euh, voilà ay. Euh, waaw mais bon tu comprends un peu ce que je veux dire. ay Mongo Betty oui mais xam nga. voilà mais bon euh, il écrivait des poèmes il écrivait des poèmes engagés quand même. bien sûr par exemple par exemple doo fi toog naan Victor Hugo. non non bien sûr bien sûr xam nga xam nga comment dirais-je. les euh, xam nga dama def terminal bu yàgg tu vois et j'étais pas trop euh, dans la littérature parce que man géographie laa def. Ah. tu vois donc c'était pas trop truc mais xam nga mais souvent day rectifier quoi. dëgg la oui parce que tamit kenn xamul. xam nga euh, nga nekk ci plateau bi nga nekk ci plateau bi Victor voilà mais si je dis comme ay Victor Hugo. c'est-à-dire même su fekkee Victor Hugo il n'est pas un. oui mais on voilà il était dans des trucs engagés voilà il il s'est s'est préoccupé des maux de sa société. Hmm. loolu am je suis pas d'accord mais bon allez-y. <laughs> waaw d'accord loolu beneen débat lay nekk beneen débat lay nekk loolu xam naa après dinañ si débat peut-être après émission bi. j'ai fait lettre moderne. dégg nga waaw waaw waaw day wane boppam man si da nga rek ma xam ni. donc euh, voilà si yooyu nga nekk tu vois mais bon puisqu'on est dans la musique je me concentre. on se concentre un peu sur donc bon bref. voilà donc euh, finalement j'ai tellement tourné que dama fa la <laughs> léegi man euh, bëgguma ñëw rek def nii falaa falaa dem parce que suñu génération malheureusement da gis émission yu bari Euh, dañu leen naan ah soo bëggee ku la yedd da ngay dem déglu ay Youssou Ndour ay Omar Pène tu vois alors que nit ki mën nga ko mën nga ko jox benn conseil tout temps le divertissant man loolu laa gëm donc si idéologie boobu laa nekk donc der bu ñuul nekkul sama premier affaire boo xamante ne nii et dernière affaire boo xam ne c'est social parce que y a y a d'autres thèmes sur la femme sur les enfants sama EP bi incha allah loolu lépp mi ngi si biir. léegi yow yaay bindal sa bopp. waaw. ngay rap. Euh, ah da ngay sama premier son sax rap la mais ma du ah, comme da ngay def euh, njaxase mélangé daal. voilà variété comme on peut dire. ah moo tax mënoo yem fenn soit nga jël way bi wala nga yem ci rab bi. ah mais yem fenn tamit est-ce que tamit du imposer sa bopp ay limites. ah mais boo bëggee cuuc fii cuuc fii tamit day xaw ah non mais c' est bien possible cuuc fii cuuc fee. et puis c' est plus intéressant wala benn kii nii la wala tu préfères dans la polyvalence. oui mais fii man maay poser question. non attends attends attends. non fii man maay poser question non non non non mais d' accord mais si tu réponds à ma si tu réponds à ma question tu sauras ma réponse. oui yow euh, comme ni ma laa léegi sa texte yi ndax yaa koy bindal sa bopp. oui de t'ai répondu depuis c'est moi qui écris mes textes. Hmm. Eh, nag carrément. Euh, non nee na daf may subaay daf may jéem a kii si plateau waaye xam nga ne man maa la gën a pànk dara sa ñuul ngay mel ko dem dajutu ko. <laughs> léegi bon ñu continuer léegi yow ci ban ngay njëkk gën a nekk ci rap bi wala ci ci ci mbalax mi. non pas mbalax nag. je suis pas trop dans le mbalax dafa guma sax sama sama hippie bi am na benn son mbalax ba ma siy waaj mais je suis pas trop mbalax. Hmm. suis plus euh, dans la musique afro. et tout ça là hmm. afro afro moderne bi nii rek. afrobeat afro afro mbalax mais pas le vrai vrai vrai mbalax quoi comme de Papa Ndiaye Thiopet. par exemple ok ok voilà donc euh, la musique moderne rek. sànq yaa ngi doon wax que am na ay artistes yu nekkul fii ci Sénégal quand même ñoo la inspiré est-ce qu'en ce moment là bay bind say textes sa liggéey am na yenn artistes sénégalais yi nga xam ni ñoo lay inspiré plus ou moins. bien sûr ça a toujours été Youssou Ndour moom moom macha allah ba ma nekkee xale ba tey daal en fait man étant petit j'écoutais pas la musique sénégalaise parce que comme ni ma la rek c'est pas la musique sénégalaise qui m'a donné envie qui m'avait donné envie d'être honnêtement euh, genre ba ma nekkee xale euh, man j'étais plus dans la musique la danse te sénégalais daaw ma leen gis peut-être suñu daan fecc peut-être ay mbalax la dañ daan fecc alors que man je trouvais très intéressant euh, lu américain yi di def parce que ñoom dañuy def show carrément seen concert il faut le dire Euh, ñu suñu conseil day manqué ñoom show yi ñu am peut-être manque de moyen la wala yeneen domaine yoo xamante ne bëgguma fa trop dugg mais euh, looloo tax euh, man si ñoom laa si ñoom laa gunóon focus mais xam nga mënoo nekk Sénégal lan da nga def par exemple musique américaine parce que doo way wayu américain yi ba dàq ko américain yi si impossible mm-hmm. tu vois donc da ngay def li nga xamante ne nii moo accommodé wu ak sa dëkk voilà mm-hmm. balaa nga am feneen base sa dëkk quoi très bien léegi sama der bu ñuul bi mu génnee lan moo nekk euh, retour yi par rapport ak euh, clip bi paroles yi et tout. Bah, ça va hein? ça va j'ai j'ai mal de retours positifs les gens ils ont bien aimé et les challenges ont commencé depuis sur TikTok parce que dugal naa ko une semaine avant ma kaa génne euh, gars yi ñu ngi koy challenge ci réseau yi mais am na gars yoo xamante ni quand même c'est normal ah tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais c'est normal euh, ils se sentent peut-être visés que dama leen xas wala alors que son bi nekkul dama xasaate loin de loin de moi parce que man dama gëm démocratie dama gëm liberté nit ku nekk am nga droit def ce que tu as envie de faire mais si je te vois faire quelque chose boo xamante ne nii euh, naan fi ñëw dem amul ndox mën naa la ne ah su ma sañoon kat fii waxuma la bul fa dem de mais nga xoolaat fi ngay fi ngay jaar tu vois mais c'est pas que dama ko woy pour clash leen pour wax leen li ngeen def baaxul parce que fii lu baax ak lu bon je pense que pas normal quoi. donc euh, aujourd'hui yow euh, boo doon analyser li nga xam ne mooy milieu Sénégal bi fii ci wàllu musique la mooy doon sa point de vue sa analyse on va dire. bon euh, damay ñëw par exemple si Afrima bi pour donner un exemple quoi parce que Afrima bi. vous étiez au courant. am na ba jeex par exemple benn musicien sénégalais jëlul benn trophée. tu donc loolu ça nous pousse à nous remettre en question dañuy naan euh, qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui n'a pas marché pourquoi yeneen dëkk yi am ñu ñu bëri am pli te sénégalais yi amuñu donc en tant que musicien da nga da nga si da si poser ay questions et bien sûr tu vas faire tout tout euh, ton possible pour euh, pouvoir peut-être y remédier nga ne man lan laay war a mën a proposé loo xamante ne nii nit yi dinañ ko dinañ ko euh, dinañ ko dinañ ko dinañ ko consommer normal les autres pays von vont vont vont bien prendre ça et puis von comprendre que la musique sénégalaise se développe et, et de l'avant quoi mais euh, euh, concernant ta question si euh, musique sénégalaise bi xam nga am na ñu naan dafa tardé am ñu naan mi ngi avancé mais man sama sama point de vue c'est mon point de vue personnel ça n'engage que moi pour man mi ngi avancé mais mbëggeel la ngeen di woy mbëggeel. waaw non mais euh, parce que am na ñoo xamante ne <clears throat> sama yenn xarit musiciens yi ah, du mu tudd seen tur dañuy naan soo woyee leneen lu dul euh, mbëggeel du dox. ñoom loolu la wax parce que les gens ils sont trop sentimentaux ils n'aiment pas que tu leur donnes des conseils comme man sama dette bu ñuul bii nii par exemple am na ñoo xamante ils vont pas parce que ñoom seen yoon nekku ci yooyu ñoom loo leen waxal mooy bëgg naa bon euh, peut-être bien man moom fait perso sama sama TikTok euh, soo comme par exemple man sama vidéo su ma ko dugalee boo ñëwee di commentaire man su ma gisee commentaire bu ma neexul je te je te réponds pas je commentaire bu fa nekk de la tontu ah si. Ah sama sama compte la dama wax lu ma neexul. mais yow il faut accepter les critiques tu es artiste. Euh, j'allais j'allais fallait me laisser terminer voilà doon ñëw mën naa nag nangu critique parce que critique moom ça te fait avancer mën naa ah. ñëw nga ne ma ah ma gis benn commentaire lii lii lii dama lay su ma la épinglé ma wax la man ce que je pense de ton commentaire je te remercie ma bàyyi fa sama. même bu dee critique bu ñaaw sax artiste quand même. mais bien sûr il faut recevoir des critiques euh, mais euh, maanaam su ma nee commentaire bu ma neexul dama koy supprimer am na ñoo xamante ne nii. genre tu peux pas les parce que tu peux tu peux vraiment pas les répondre quoi dañuy ñëw ils là-bas je préfère supprimer man ba may soog a samay vidéo rek ñëw bu ñaaw boo xam ne si ku nuyoo ma ne ko d'accord looy waajal jamono ji ci sa carrière euh, artiste lan la lan moo say objectif. benn mini album benn EP laa bëgg ñëw bon certains diront que c'est parce que dafa guma dara mais man jeu dis que c'est bien parce que nit moom il faut savoir oser. <coughs> waaw ki ne risque rien n'a rien daal. Hmm. léegi après weeru koor gi incha allah sama EP dina génn <coughs> avec sept titres benn bi génn na mooy sama dër bu ñuul. sept titres avec des thèmes intéressants euh, comme ni nga ma posé woon sànq si j'ai des thèmes des thèmes vraiment très sociaux mu ngi si biir voilà. ni nga may featuring. des featuring xam naa après EP bi incha allah. donc euh, récemment je dirais même pas récemment amoon na ay jamono si ginnaaw rappeur bii di Booba. ñëwul Sénégal muy clashé un peu les rappeurs mu ne euh, comme rap polonais kenn xamu leen donc yéen cela veut yéen artistes sénégalais est-ce que am na fenn foo leen toj quand même. <laughs> waaw loolu nag xam nga loolu et euh, je peux dire que c'est son point de vue à lui Bouba. Mm. que ça n'engage que lui. waaw ah, parce que nit moom je pense que li nga am na ñoo xamante ne nag dañoo topp seen xalaat comme on dit. luñu xalaat rek nañu wax mais peut-être aussi loolu la gis si rap sénégalais bi tu vois suñu jëlee benn exemple euh, Dip Doundou Guiss on peut dire que c'est la star euh, du rap sénégalais Dip il est international hein? selon toi ah mais euh, man loolu laa gis ah man ba tey man je parle pour moi de ok ah. ngaaka ah mais ngaa kat bi tamit jàmbaar la de. Ah, mais je pense que je pense que je pense que daal nga jàpp mooy dib laa joxe comme exemple. mais je dis que c'est la star. de rappeurs du Sénégal man loolu laa wax. même devant euh, Omzo Dollar. non ñoom ñëpp ay ay ngand lañ ay Omzo Dollar ay Canabasse loolu toj nañ fi loolu kenn waxatu ko. kan moo teg tànk kan moo teg tànk jamono yi ci rap non ma si prononcé mais dama ne. Ah, dama ne j'allais venir ah. j'allais venir sur le euh, sur l'aspect international. ok tu vois donc dama ne Dip il international man loolu laa wax parce que des boo duggee si ay tubam wala nga dugg sa si yeneen affaire da gis wala comme seen euh, si loo leen ne bi ñu mujjee def rek tu vois les commentaires ils la supportent. Tu vois, donc man su boobaa nee rap sénégalais yemul fenn man je me dis bon ça c'est son point de vue personnel. mais fii ci Sénégal en ce moment selon toi ci rappeurs yooyu sax nga xam ne tout le temps dañuy clash de seen yoon dañuy xëccoo titre bi en ce moment là boo doon jox trône bi koo koy jox. ah c'est pas à moi de donner le trop non parce que ah, sincèrement sincèrement je te dis ah j'ai commencé par le rap mais man je suis pas rappeuse rappeuse de je suis pas rappeuse de soo leen seetloo sama rap su fekkee déglu ngeen sama son bu baax sax mhm. c'est des rap boo xamante ne ni c'est doux voilà bu oyof bi je suis pas rap dans le li ñu naan I'm from the hood yooyu noonu je suis pas dans ça quoi moom ci artiste yi la wax mais man dama naa yow fexaa foo toj man fu ma toj. Hmm. mais bien sûr bientôt ma commencé incha allah rabbi. mais tojaguma mais ñaan naa yàlla toj. Hmm. ah je viens de commencer. est-ce am nga ay fan ñuy ñëw di. ay fan. waaw waaw xam nga nit moom yow mi sax am nga ay soppe. mën nga génn nii si mbedd bi rek am kenn ku la gis rek bëgg la. Hmm. nit moom mënul ñàkk ko bëgg. voilà nit yi dañuy ñëw euh, sant yàlla ah da nga lay suivre si réseau yi da nga maa neex est-ce que je peux avoir ton numéro de téléphone man sa bal de la numéro de téléphone. parce que man j'aime bien euh, créer des relations. Mm. je suis très très très très très sociale quoi. man j'aime bien parler avec tout le monde gis ngeen ma bu ma plateau bi rek maa ngi mel ni ku nekk sama kër. <laughs> est que <laughs> aujourd'hui il y a des liggéey derrière. Euh, pas encore mais je travaille avec pas mal de journalistes pas encore des artistes hein. pas encore des fois nag dangay ngay def dara ñu envoyé la message Instagram ñoom parce que ñàkkuñu ki ñaan quand même euh, di la di la di la di la encourager di la féliciter di la wan ni genre di la expliquer rek. conseil que affaire bi dafa metti que da ngay jàpp comme tout le monde. que incha allah ñoom fi ñu toll nii dinga dinga di di nga dem fu ko raw daal. d'accord <coughs> mën nañu xaar euh, dara côté culture. suñu culture ñun euh, Sénégal. bien sûr parce que man comme ni ma wax rek man variété laa bëgg a def donc sooy def variété reggae sax et dans et dedans. lépp mun na nekk si biir. donc la culture sénégalaise bien sûr elle sera au rendez-vous c'est culture aussi. alin am na partie préférée de parce que nee na balaa ñoo wax nit ki euh, fan nga fan nga fan nga toj wala mu nit ki naan fii laa toj fii laa toj. Mhm. foog mu nekk sa baat sans instrument ou rien. Ah. sans autotune oui nga xam ne lii du am benn benn benn dara. bilaay non sinon dañuy naan kii artiste studio laak dafa euh, kii dafa lee nu mu ah, tudd. ah, ah léegi autotune dafa bëri léegi da ngeen. waaw defar moom. lépp defa nekk si affaire technologie technologie daal dafa avancé daal. avancé nañu biil may benn. Mhm. biil instrumental. ah mu daal di kii. <coughs> après mu daal di yëkkati son bi ñu tëjaale ko. ayca bi est-ce qu'on peut avoir euh, un beat on va dire. ayca. voilà. donc bii euh, il euh, rigole il rigole le mec il rigole. non ah, non avant ça une question. temps yii dama seetlu que tendance fii ci Sénégal da ngeen tàmm di boole olof. français ak ah, anglais ah, ah, pourquoi ce choix non j'ai remarqué surtout ñoom euh, ñiy mujjee ñëw jeunesse bi da bëgg dugg si game boobu pourquoi. déjà anglais bi moom xaaral ma kii mais déjà yow booy wax rek da ngay xoolof di wax français. Oh, non waxuma su may wax. dama non non je te donne je te donne un exemple rek. non non non non c'est pas d'accord. non non c'est pour te répondre en fait dama tàmm yooyu nag maa ngi jégalu. ok euh, en fait même sooy wax sax xam nga man ni may wax ne déjà nee naa en fait ne même sooy wax dañoo tàmm tellement jël wolof français wolof français ba suñuy c'est comme si da ngay wax en fait. tu vois. Mhm. du coup sa texte yi c'est toi quoi li ngay waxee rek. mais anglais bi xam nga ay au début même avant. Mhm. da doon wax français des fois wala mais récemment da nga ci dugal aussi euh, on va dire la langue anglaise pourquoi ce choix. Ah, parce que anglais bi tamit dafa bokk ci wax bi xam nga yow yow mi sànq ba tey maa ngi dégg ñu lay wax naan lan anglais <laughs> <laughs> anglais. non mais anglais c'est juste pour te dire que maanaam ñun ni ñuy waxee. ni ñuy waxee comme ni may waxee ak yow ak kii. man peut li ma nekk si plateau lu man club d'anglais laa nekkoon. anglais dama koy làkk tu vois mais pas dama si ay trop trop mais dama koy làkk su ma sama club d'anglais dangay làkk wolof français anglais léegi du say texte c'est la même chose mais anglais bi man lu tax ma dugal ko si perso. c' est parce que bëgg naa au moins kenn ku nekk euh, extérieur bu comprendre man sama thème général la lay défendre si waaye tu vois su ma nee black is beautiful dina xam ne kii si affaire ñuul lay wax. tu vois dina la jox benn idée. ok c' est ça quoi. léegi comme Bill moom ah, <coughs> xam naa ne ah, dafa bëggoon ñu ñu gis clip bi moom moo tax mu daal di ñu koy tegal rek ñu daal di di di xaabaabal. Mhm. man wax dëgg neex yàlla clip bi neex na ma ah. mais man baat bi laa bëgg léegi sans rien. sans original original. oh black is beautiful. black is beautiful. Hi, oh, black is beautiful. Oh, black is beautiful. wala ma waat leneen. c'est clair. wala ma waat leneen. Alune convaincu. Bah, elle, est... J'ai un la voix, quoi. Elle est belle, la voix, donc. Merci. Yeah. Merci ah. encore. Euh, merci à vous. Fatou Sidibé, qui est con. Mélomane, là, de. Mélomane, ah, là. yo. Nice. Sur le modernien. Nice, nice. En tout cas, Fatou. Mais bah, Victor Igor, euh, engage. Non, eh, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, laisse, je partirai. allez au blanche. mais waaw waaw je sais mën naa la ko restel de. boo fexee ma restel la ko fi léegi. Eh, on est avec voiture je sais que tu m'attends j'irai par la forêt. heureusement que on n'est pas en cours de français <laughs> ici <laughs> donc euh, merci beaucoup encore. Euh, en tout cas FIFA pas FIFA mais FIFA. <laughs> mi nga xam ne yaa nekkoon euh, yow et eh, laisse-moi laisse-moi FIFA merci beaucoup tey. Euh, invitation bi nga xam ne yaa ngi koy euh, accepté de notre part. pour rejoindre aussi aujourd'hui aujourd'hui suñu matinale donc ma bàyyi nga tàggatoo suñu téléspectateur man je pense que yéen waroo leen ma remercier ah, man maa leen war a déjà parce c'est pas trop évident de voilà def euh, ngay soog a commencer ñu ne se voilà si plateau surtout suñu matinale xam nga c'est pas c'est pas trop évident daal donc maa ngi leen di remercier di remercier sama label waa Monial Entertainment di remercier sama manager di remercier waa Seneweb ak euh, journaliste yi may liggéey lépp ah maa plus précisément di remercier sama yaay c'est la première fois ma remercier ko si plateau yi xam nga damay fàtte ay remerciement man sama wàll bi rek laay remercier <laughs> remercier sama yaay remercier sunu waa sama xarit sama mbokk soppe yi am di jàmm yi voilà. donc euh, merci euh, beaucoup Fefa donc xam naa beneen yoon da ngeen may da ngeen ma siy booleel de lettres moderne yow. affaire de lettres bàyyeeguma beneen yoon dissertation pare nag nga xoolal nga résumé tout ce que tu veux ce que tu veux en tout cas <laughs> euh, ou bien commentaire euh, qui sait Fatou Sidibé bien merci à toi que le tey Alioune Gaye laa koy woowee Gaye Sow Arlem fekk ne dafay donc euh, bien merci à vous deux aussi tout au long de cette semaine donc di remercier aussi képp koo xam ni yaa ngi rendez-vous le lundi inchallah merci à toi Sadio Diallo Aliou wii di remercier suñu artiste bii di Fefa moom euh, mi nga xamante moom lañu dalaloon tey jii ci euh, vendredi bi te bàyyil Victor Hugo nag euh, l'équipe <laughs> engagé mbokk ñu tamit ñoo amoon mbégte teew fii tout au long de cette semaine ñu leen di jox dig daje la semaine prochaine bu soobee suñu borom di leen souhaiter un bon week merci beaucoup Alioune Guèye merci Wilène merci suñu invité tey euh, FIFA donc euh, gis ngeen euh, li nga xam ne rek moom la tàmbali ci wàllum musique et j'espère que neexoon na yi et j'espère aussi que di nga gën a innover indi yeneen ak yeneen yoo xam ne rek comme ni ko Wilène waxee dina tax ñu daal di la dalalaat suñu émission suñu matinale dina yaatal d'accord incha allah donc remercier téléspectateurs yi àndoon ak ñun tey depuis huit heures ci suñu matinal ànd ak ñun depuis lundi aussi saay su nekk rek di safoo seen dañ leen di jox dig daje euh, lundi incha ci beneen matinal donc d'ici là portez-vous très bien passez un très bon week-end surtout restez connectés au programme de suñu label TV donc ñeneen ñi ñu ngi ñëw pour àndandoo ak yéen li des ci euh, journée bi week-end bi aussi et nous lundi incha allah donc euh, ñu yendoog jàmm merci à vous.